Dionne ndax nag bu ñu waxantee dëgg Mohamed Boun Abdallah Dionne bokk si ñi xam ne ñoo gën a fidèle ci Macky Sall Baye Fallou Macky la mo nekk te moom Mohamed Boun Abdallah Dionne bi mu nekk premier ministre bu Sénégal lu bëri ci réew mi doxal nag lu bëri ci réew mi lijjanti na ko kon jamono ji yàlla na Macky Sall indiwaat ko mu jiite gouvernement bi ab tëg na politique la xelam màcc na jëm ci wàllu wee yéen kaay gi réew mi ko di mooy wax nee na jafe nga xam ne ci la Macky Sall nekk maanaam guuta gi Macky Sall nekk ak tagga témb gi lenn rek moo ko ci mën a génne muy jëliwaat Mohamed Boun Abdallah Dionne ndax nag sooy dem ba xamutoo fa nga jëma dellul fa nga jóge woona loole la réew mi ko di jeex xëy di xelal Macky la yéene kaay gii di Vox Populi nee na liggéeykat nga xam ne ñoo nekk ci hôpital Aristide Le Dantec ñoom nag nee nañu suba ci samedi ji danañu amal doxum ñaxtu yéene di la témoin nee na angaar bi nga xam ñu war a defara ngir nag yóbbu fa ne ñoo amee feebaru dialyse ba léegi la yéene kaay gii xëy fekk fa Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi ci réew mi nee na hôpital Dantec bii nga xamante ni maanaam dañu koy defaraat amul benn malade boo xam ne ñu la sàggane ñëpp ñu leen jël en charge ba tey liggéeyu hôpital bi benn fan ci weer septembre lay démarré ñetti hectares yi nga xam ne moom la ñuy wax ne dañu ko jaayee ku mu neex mën ngaa def enquête parlementaire waxi Marie Khemesse Ngom Ndiaye la yéen kaay gi di Walf fa Farba moom muy wax ci lu jëm ci wàllum politique nee na Abdoulaye Wade benn intérêt di dem di ànd ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko di ko collaborer ak moom Abdoulaye Wade amu ci intérêt kaddu yi Farba Senghor la nee na Abdoulaye Wade bi nga xam ne jamono ji am na ko mooy booleem booleem ñi nga xamante ni ay libéraux la ñu Macky Sall sax daf ciy bokk bu boobaa nag Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñoom ñaar ñooy toog daal di wax li mën a nekk ak li munta nekk yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef ni ki démb daan def ab sortie def le quotidien nee na élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko commencé na campagne ba nee na dina def ab tournée ci monde rural bi yene kaay gi de Les Échos Ousmane Sonko nee na képp koo xam ne yéen ko dégg muy wax ab député la ba pare foruma fenn jàppale ne kooku ab tappalekat la Ousmane Sonko démb ci déclaration bi lu jëm ci wàllum François Mancabou mi nga xam ne moo génn àdduna nee na gars yi dañu ko torturé ba mu mujjee ñàkk bakkanam ndax dañoo bëggoon mu taxal ma man Ousmane jamono ji gars yi ñoo ngi monté ay dossier lu jëm ci wàllum viol lu jëm ci wàllum diffamation wàllum Sénégal ak France ñoo ci lëkkaloo ngir nag bañ ma dem ci élection présidentielle 2024 waaye nag bay boo ñu tàyyi ko moom Ousmane Sonko nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci kasu bi te ñu leen di tuumaa lu jëm ci wàllum terrorisme mooy force spéciale yi nga xam ne Macky ñi mu àndal ñoo ngi koy wax Ousmane Sonko nee na ñooñu saa su nekk ñoo ngi leen di wax nan leen taqaleen Ousmane Sonko bu ngeen bëggee génn ci kasu bi yéene kaay gi di mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci crise diplomatique bi nga am na ñuy waa ONU jamono ji ñooy arbitre bi ñoom la ñuy sàkko mooy ab réunion d'urgence bu conseil de sécurité bu ONU yéene kaay gi di Dakar Times xëy dañu xibaar naan ñu bëri na ay société yoo xam ne ameel nañu Senelec xaalis maanaam société française bi nga xam ne maanaam mooy gérer terre bi moom Moustapha facture courant yéene kaay gi tamit nee na ñi nga xam ne ñooy waa Sen'Eau di entreprise française ñoom tim ameel nañ lu toll ci cinq milliards ameel nañu Senelec xaalis yéene kaay gi di Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall 43 milliards yi nga xam ne waxoon na moom lay séddale askan wi lu toll ci cinq cent trente-quatre mille ci ay njaboot ne cash transfert yi Macky Sall waxoon 43 milliards yéen kaay gi nee na boobaak léegi mën na lu toll si ñetti weer waaye nag ndeke mbir mi demul ci nga dikkul may laara bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne am na ci nee ma mbir mi doxul nee ma mbir mi doxul ndax nag lu jege 48 pour cent ñoo xamante ni ba léegi jotaguñu dara ñi nga xam ne nag ñooy waa banque mondiale ñoo ko xamle nee na ñu sax mbir mi tax dafa avancé wala yéen kaay gi di vox populi si nga xam ne dafa yokk ba maara day taal kenn mënu koo gisa journal bi de la témoin nee na saakoob soble bi nee nañu cinquante mille lay jar diwaanu Touba libération